dal leen ak jàmm mbokk internet yi borom tës Ahmed Aidara ak maire bu Guédiawaye di Alioune Sall daanaka ñoom ñaar ñii seen jàmmarloo bi jeexagul de waaw waaw Ahmed Aidara ci jamono ji waaw su doon combat ma ne la fëgg na ko ara waaw waaw botti na Alioune Sall daal di koy sëlam suuf ngir taxawaayam ak teewaayam ci weti askan bi ci jamono joo xamante ni kii di coronavirus mu ngi lëmbee àdduna bi maire bu Guédiawaye bii di Alioune Sall rakku makki Sall ji fi mu toll nii bu yaboo mu defaraat taxawaayam bu baax a baax su fekkee ne bëgg naa wéy di doon maire bu Guédiawaye bi donte ba fu mu toll nii kenn xamul li lee di élection municipale yi jongante maire yi kañ lay xew ci biim réew diggante Ahmed Aïdara ak aline Sall mi di meeru Géejawaay seen jongante ba saf na sàpp ñoom ñaar ca Géejawaay laata li lee di coronavirus di ñëw ci Géejawaay mu mel ni nag même bu fekkee ne dañoo songandoo àndandoo ngir xeex coronavirus bi lee jël lépp daal di koy teg ci suuf teewul benn yoon am koo xamante ne moom fu mu toll nii daanaka mu ngi ka ca des jaarale ko ci taxawaay bu am solo bu mu amal ci Géejawaay ci jamono coronavirus équipe de campagne bu journaliste Sen TV bi mi ngi gën a am jëmm ak taxawaay de ca biir géejawaay fi mu toll ni moom li wér te wóor mooy kilee di Ahmed Aidara yàkkamtiwul lu dul rek feebar bi génn ci réew mi ngir ñu jàpp bésëb campagne bi ba moom itam mu daal di ñëw jongante ak kilee Awni Sall xam na ne nag géntam mooy toog ca chaise u fauteuil toog ca chaise u euh, monsieur le maire ba waaw waaw Ahmed Aidara daal jamono jilee darab ga mu saxaloon ca géejawaay ma ngay meññ te ren ya ñoom ña ngay gën a dëju waaw waaw li koy firnde mooy ma ngay taxawu ak a dimbali askanu ci jamonob coronavirus ji feebar bi rajaxe santé bi ñu ne déeta waaye mu daal di ndërmel suñu économie dëkk bi ne tekk askan wi yëpp di yuuxu ci boobu la jamono ci la Ahmed Aidara daal di jóg nag ngir taxawu askan wi ngir ñaax leen ci nu ñuy moytoo jàngoro ji waaye itam yëkkati alal ju bëri ngir dimbale ko waa Géejawaay borom revue de presse bu rajo Zik FM borom bismillah ah! Ahmed dara fas na yéene jël alalam ak payooram ngir séddale ko gox goxaat ya ci Géejawaay ci banlieue bu Ndakaaru bi ànd te yu nekk foofu foofulee ca géejawaay ay dara jox na leen ab enveloppe bu def cinquante mille francs waaw fukki junne waaw waaw am na solo lool neexul ba neexul na ko waaye taxawaayu ay dara bi yokk na ko doole ca biir géejawaay ndax population ba yëpp askan wa ña nga koy sant di ko gërëm tey rafetlu ni nga xamante ne moom la taxawoo askan bu géejawaay ci fàttali moom ay dara jotoon na taxawal ab kuréelam te pare ci jongante ngir toog ci futa yëpp maire bu géejawaay moom njiital ab kuréel gii di mouvement géejawaay la bokk booba ba tey nag ki lee di Ahmed Aidara Touba noppiwul benn yoon ci def ak jëf ay œuvre sociale maanaam di dimbali askan wi ngir mën a kaj ji mbaa botti maire ba fa ne di Alioune Sall rakku Macky Sall ji nga xamante ne mu ngi jiite Géejawaay depuis atum 2014 ba fi mu toll nii waaye su moytuwul waa Géejawaay dañ ko folli de waaw waaw ndax Ahmed Aidara jamono ji ñu toll nii ma nga ca biir askan wa kola leen tafu ñàpp di leen taxawu di leen jàppale di leen dimbali looloo ko nar a may doole joo xamante ne nag fi mu toll nii kii di war naa tiit kon nag mu ngi noonu jërë ngeen jëf bismillah kon ma ne la tëjal